naa ko sànq bu amee ñu am leen métti lool ba mu jaral leen yëkkati seen i kàddu ñoom ñoo di journaliste ak animateur di saytu ak ak yelleefu tout tànk yi lee ay ñaari seex yu ñu bàyyi ñu faatu te gis ñu kenn ku leen taxaw moo leen métti te ñu gis ne loolu lu mënoon ñàkk la dàq ñu nag yóbbu fi mbir yi mbaxade doon benn gannaaw ba ñu joxeñe ab baaraamu tuuma soxna Eva Marie Coll Seck ne luy njiig njaaga moom ñoom taskatu xibaar yooyu lee gonto amal ab toogandaay ñaxtu ca buntu ministère de la santé Amadou Li Mbaye la ñu fa yebaloon ñu teewlu ko ci reportage kuréel gi ëmb taskatu xibaar yi xeex àq ak yelleefu tuut tànk yi ñu ngi naqarlu loolu ñaari seex yu jigéen ñi faatu ci àllarba ji ndax ñàkk ku leen taxawu taskatu xibaar yi nag joxañ baaraamu tuuma jëwriñ ji yore wàllu wérgu yaram ci biir réew mi. kon Eva Marie Coll Seck ñoo jaaxal ndax sax ñaari fan mu organiser conférence de presse di wax ci Ebola. Sénégal du Ebola moo fi rey ndax kenn mosu fi gis ku Ebola rey Sénégal li fiy rey mooy bavure médicale mooy nga ñëw am sa feebar. ñu war la faj te fajuñu la loolu mooy Ebola Sénégal parce que mënuñoo comprendre ñaari jumelle prématuré def juróom-benn hôpital ñu ne amul benn place boo xam ne mun nañ fa dem crèche ma ne kon dëkk boobu est-ce que war nañ wax couverture maladie universelle. taxawu aji ku feebar jafe-jafe la ci biir réew mi loole di kàddu journaliste yi nga xamante ne ñooy xeex uh, ak ak yelleefu tout tànk yi. fii moom prise en charge baadoola ak ku am xaalis la. su fekkee da nga am xaalis fii lépp loo fi bëgg si santé di nga ko jot bu dee nag danga fi néew doole bu ñu la xoolee ci kaw ba si suuf nga sol ay yére yoo xam ne dafa nasax sol ay carax ñu ne kii bu ñu ko dugalee si hôpital bi après du ñu fay nasaxal la ne la demal feneen demal feneen. ñoom journaliste yi nag ñu ngi sàkku ci procureur de la république mu jël yëf yi te wane ci fulla ju mat sëkk. ñu teg ci ne daanu yóbbu këru docteur yi nga xamante ne danoo wane yaafus ci mbir mi fa mbaxana doonee benn. képp koo xam am nga si responsabilité takk nga si. incha allahu taala danañ la topp si justice waaye nag ñuy artu procureur de la république ne ko sénégalais yëpp a yem munoo fi nekk bu ñu nee dañu offensé président de la république nga autosaisiru jàpp nañu yóbbu prison buñ fi reyee ay xale nga ne ceel loolu moom duñ ko nangu. takk der ya nekkoon ca buntu ministère de la santé nag ñoo mujj dàq waaye ñaxtu yi ci lu àndul ak fitna. jërëjëf Amadou Ly Mbaye ñu ngi lay sant gërëm dem dañuy wax ci wàllu wér-gi-yaram ñu desandi ci fii ci Sénégal lu ëpp ñeenti téeméeri soxna ak ñeent fukk dañuy ñàkk seen bakkan ndax wopp ji di cancer yóbbe waa LISCA di ab kuréel guy xeex ak wàll yëkkati seen i kat daal di ko ñaaw lu ñàkkum doomi aadama yi seen xam-xam màcc ci wàllu wi ci biir barabu fajukaay yi loolu lii ñu ngi ko fësal ci ab ndaje mu doon seex ak taskatu xibaar yi moom Anton Ndour Louis Joseph lu tollook juróom ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñeenti ciy soxna dinañu am jàngoroy cancer du sein lu tollook nag ñeenti téeméer ak ñeent fukki soxna dinañu ci ñàkk seen bakkan ak bu nekk cancer du sein di jàngoro boo xamante ne bëri na lu muy dal lool ci soxna yi naam li muy faat ci bakkan bëri na wante loolu teewul lopito yi ci biir réew mi boo ci dem doo fa fekk spécialiste yu mat nombre de maladies yi am ñuy recevoir Euh, bés bu ne ci institut du cancer bi nga xam ne mi ngi biir hôpital de Dantec ñun nombre de spécialistes yi fay liggéeyee dañoo xaw ndaw parce que boo xoolee cancer chirurgien yi dinañ ko faj donc euh, dinañ euh, ñun ñeent chirurgien rek moo am service ba heureusement d'ailleurs am nañ ay étudiants en formation yu tolloog douze te li ci gën a bëri sax duñu ay sénégalais ay étranger lañ ñoo ñu dañ leen nar a former ñu dellu seen dëkk donc ñeent chirurgien ak ay étudiants yu fa nekk ndaw na trop par rapport ak malades yi ñuy am ñun service bi dinañ jot année bu nekk mille nouveau malade bi gën a am importance mooy chimiothérapie ñoo gën a ñàkk ci service bi man mii boo xoolee. chaque jour dinaa recevoir lu ma trente malade fanweeri malade ci sama consultation. kër docteur boo ca dem euh, ñi nga xamante ne ñoo di fajkat yi wàccoo jàngoro boobule seen lim néew lool la def. déjà foog ñu fay siège bi foog ñu fay ndox foog ñu fay làmp foog ñu jàppale malade yi foog ñu fay personnel bi. soxna yi nga xamante ne nag eh, daan nañu xaar octobre rose ñëw ngir Lisca daal di leen a dépister nemmeeku nañ ne at bu nekk dafay wàññeeku tax nag eh, ki nga xam ne moo di njiitu Lisca boobule di ñu xamle ne dañuy am ay jafe-jafe jamono toll nii lii di cancer du sein faj ko cher na eh, li nga xamante ne nag moo di matukaay yi ñuy jëfandikoo ci lopito yi ngir mën ko faj itam néew na lool loolee tax na nag jamono juñ toll nii ñu mën a jàpp ne bokk na ci li yokk tax soxna yi ci ñàkk seen seen bakkan at bu nekk lim bi di gën a takku di dem tax nag ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàllu wi di woote wàllu. jaajëf soxna moom Anta Ndour ñu ngi lay sant di gërëm ca Mbour ñi di liggéeykat yëngootu ci hôpital ba jël nañu dogal daal di dakkal seen grève bi ñu fi sumboon boobaak léegi mu toll daa nekk ci ay fan waaye terewul nag ña ngay wéy di saako ci Eva Marie Coll Seck muy jëwri ñu ñu dénk wér gi askan wi muy jële fa seen directeur boobu leen ndax doyal nañ ci moom sëkk ak barke dañuy dem ca Mbour fekk fa Thierno Daf diggante liggéeykat yi nekk ci hôpital bu Mbuur ak kileen leen jiite mbiicoo ak mbaaloo bi tàmbaliwaat na. dañu suspendre woon suñu mot d'ordre ñun jóg nañ pour lever suñu mot d'ordre pour taxaw jàmbaarlook moom pour wax ko ni ko hôpital bi moomu ko. ñun duñ ko bàyyi muy dem donc euh, muy dem ñu koy affecté mu bàyyil ñu kamb goo pare reeni mbuur gépp moo ciy sërxal sërëx ñun loolu duñ ko def tey duñ ko def bind nañ préfet bind nañ la maire bind nañ médecin chef de district donc amplier nañ ko moom répond euh, euh, euh, lettre yi donc moom mu xam ko mu jël ko. bi ñuy sànni seen xeer wu njëkk nag. ñoom liggéeykat yi nee nañu conseil d'administration bi ñu amaloon ci weeru septembre bi ñu génn ak bépp ndogal bi fa tukkee ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg. commission bi euh, euh, syndicat yi ci hôpital bi yëpp ñoo ci nekkoon médecin chef de région médecin chef district ak administration ak directeur ak membre conseil d' administration yi bi ñu waxtaanee pendant deux mois seize jours en sept séances directeur war a porter mémorandum bi mu def li nga xamee ni mémorandum bu fulu la maanaam conclusion commission bi pendant deux mois seize jours moom defu ko ci leneen lu waral merub liggéeykat yi nee nañu moo di diisaayu bor yi nga xamante ne seen direction bi leb na ko. ñu interpellé ACP bi nga xamee ni moo yor xaalisu hôpital bi nga xamee ni moom moo fi nekk mu ne directeur moo ko woo le 27 ci guddi ni ko dette yi nga xamee ni moom la ñu war a présenté SEA yokk ci dettu 213 millions pour Sénélec ak dettu 42 millions pour fiscalité. loolu moo tax dette yi dem ba 300 millions ñu ne leen nag ñun ay doomi wolof lañ. koo jëw mu xam ko koo tegal ndëgg sërëx mu xam ko ñun ministre bi bu dikkee suñu naataango la honneur yi mu am yëpp dinañ ko def mais ki nga xamee ni moom séq ak nañoo moom li ñu war a séq ak moom bu jour ba ministre bi dina ko gis moom dina ko gis ñoo ngi xaar altine ministre de la santé mu ñëw ñu régler problème bi une bon fois pour toutes ginnaaw biñ leen teree dugg ci biir hôpital bi nag am na ay yenn ci ay taskatu xibaar yu ñu làmb seen yaram bu baax a baax te ñi ko def moo di vigile yi nekk ci bunt ba te ñoo ñu nee nañu directeur bi moo leen ci jox ndigal mbuur géej rajo télévision Walfadjri Thierno Daaf jaajëf Thierno Daaf ñu ngi lay sant gërëm ca Ziguinchor nguur ga ña nga fa seetaan loo xam ne nii buñ ci jël ay matuwaay am musiba ma bokk ba dana fa am sa nekkee ca gaaru Thiel ba jaaratuñ tal ak seen natangu yëngatu ci wàllu horaire yi lee kenn ku nekk ma ngay ñot di jëmale ci booram ba euh, démb ci alarba ji euh, bu woon alkaati kon jàppante dana fa am gannaaw bu ñu wàcc ci mbedd mi baare tali bi gàllankoor dem beeg dikki bi lu toll ci ay waxtu ñoom chauffeur horaire yi xam nañ ni du ñu mës dugg ci biir garage boobu lee dañuy dem ca Ziguinchor fekk fa Mouhamadou Papa Mané ñoom ñoo bokk lu ñuy def waaye seen diggante daanaka ñagas na lool tey suufari ndekk ci gaaru cër bu Sikicoor ak seeni morom yi dawal horaire yi daanaka bëtu noonu la ñuy xoolante loolu nag feeñoon na ci mercredi bi ginnaaw bu waa gaaru cër bu Sikicoor tere horaire yi dugg ci biir dëkk bi diiru ay waxtu nag teewaayu alkaat yi ak coow client yi daanaka taxul ba yëf yi sotti. dañu ne arrêté dafa génn arrêté ministériel dafa génn pour ñu tere horaire au niveau national lépp luy horaire fi mu ba maraîcher arrivé départ euh, Ndar arrêté nañu horaire Touba arrêté na horaire Fatick arrêté na horaire Tamba arrêté na horaire Sédhiou mi arrêté na yaa ngi nii ku ci lépp million par mun na ko fay ñoom ñu nii di fay seen dix mois nga fay vingt trois millions de lebee vingt trois millions si banque dans dix nga fay ko ñun 2 millions bu ñu ko lebee 3 ans dañu dañu am ñu liggéey duñu liggéey duñu tamit daanaka taxawuñu rek seetaan mbir mi ndax ñoom it dañoo jël seen i bus baare tali bi pour benn oto bu ndaw bañ a romb loolu tax ba yenn clients yi wàcc jël yeneen oto ngir dem seen yoon di situation boo xamante ne mun naa continuer bu autorité jëlulee ay matuwaay pour organiser secteur bi nga xamante ne daanaka am na solo trop ci askan wii Papa Mané Ziguinchor rajo télévision Walfadjri. jaajëf Mamadou Papa Mané ñu ngi lay sant di la gërëm daayira Matlabul Fawzayni ba nekk fële ci Touba mer nañu lool njiitu réew mi Macky ak liggéey bi ñuy liggéey ngir seetal dëkk bu sell bi amul benn ndimbal boo xam ne ni mës na koy yëkkati jëmale ko ci ñoom ci am ndaje mu yaatu mu doon amal ñoom kilifa yi ngànk daayira bi ñu ngi sàkku ci nguur gi mu dimbali leen ci ab centre d'enfouissement technique te moo di ab barabu tuurukaayu mbalit bu dëppook jamono dañuy dem ca Touba fekk fa Léopold Tamba niki réem taax yu bari yoo xam ne seen limu askan ci anam gu muy yokkoo day gaaw lool Touba yit noo ne lay jànkonteel ak i jafe-jafe ci wàll mbalit jafe-jafe yu ni mel nag tax na ay mbootaay yu wéeru ci ay kilifa diine di yëngu ci wàll cet gi file ci tuuba taxaw tem ngir xeex salte gi daayira Matlabul Fawzeyni sëñ Saliou njaboote ko ci jamonoom ñoom ñoo ngi woo nguuru Macky Sall ñu tabax ab installation boo xam ne ne dencukaayu mbalit lay doon boo xam ne bu dëppook jamono Bàcc ba moo jiite mbootaay gilee quartier bu nekk dafa war a am benn oto boo xam ne ni maanaam dañu jël mbalit bi parce que fii ay sareet rek ñoo fi jël mbalit bi beneen problème bi moom mooy soxla nañu centralu mbalit parce que Touba ba tey amagul centrale boo xam ne fa nañu jëm di fa euh, tuur mbalit bi sareet yi ñoom ñooy daw ku ci daw ba dugg benn koñ kenn gisu la nga décharge sa mbalit foofu kon mbalit bi mu ngi fii ci biir dëkk bi. moom mi bàcc di ba jiite mbootaay mi le ñaawlu na matériel yi nga xam ne ne moom la nguur gi di séddale file ci Touba ngir setal ko te nga xam ne ne du yegsi ci loxo yu ko yeyoo. xam nga ne mairie dafay doog am Touba ah léegi euh, xëy na ñoom euh, seen liggéey programme boobu bokk na ci mais nag gisaguñ ko. Abdoulaye Ka rek dafa doyul parce que Abdoulaye Ka dafa am ministre am président ci musuñoo gis mbooloom Touba mii. lenn loo xam ne bàyyikoo na ci président ñëw ci ñoom à chaque fois ñu ngi dégg ne ñu ngi fi indi ay jun junniy brouette di fi joxee lu nekk mais ñi koy jox ñooñu kenn koo xam ne nii jiite nga ci téeméeri nit amu ci kon ce qui veut dire ne kon matériel boobu du agsi ci ñii te ñii ñoom ñooy mbooloo Touba ñii ne képp koo xam ne nii maanaam jàppale nga leen jàppal ni jàngi jàppale waa Touba. lu leer ba leer mooy mbiru mbalit mi niki ci dëkk yu mag yi fili ci mim réew lu muy laaj ngir ñu saafara ko moo amagut donte sax digge yi bari na ci nguur yi nga xam ne ñoo fi toppante Touba Walfadjri rajo TV. Léopold Tamba. jaajëf Léopold Tamba ñu ngi lay sant di la gërëm xibaar ci gàttal askan wu dëkk ci jidda caare ko rawatina ci gox bi naan jidda dëm ne la watuñu ba yandoor li ko waral moo di seen bassin de rétention boobu lee gannaaw ba mu boomee juróom-ñeent ci seeni i doom ñoom askanu jidda dë ñu ngay wéy di ñaaw lu melokaanu seen bassin boobu lee bu timis xasee jot kenn dootul ñeme génn ci biti ngir ragal wuyi sàkkal la pexe ndax amul benn lampe bu fa tàkk suñu xibaar yi weesu dégg ngeen ci reportage gi ci Théodore Semedo def askan wa dëkkee ci diwaanu Tambacounda ñoom ña ngay tëmb ndox mu mu bare mu bare bare mu wàcc tey ji ca diwaan ba yóbbee askan wi dund ay jafe-jafe ndax ñii seeni kër daanu nañu si ñii ñoom lépp la ñu dencoon ci dund daanaka ndox mi yóbbu na ko askan wa dëkkee ci Tambacounda jaaxle loolu la ñuy def ba tax ñu yëkkati seeni kàddu daal sàkku ci nguur gi mu gestu leen ci biir xibaar yi wala dañ ci dellu si ak suñu naataango bii di Alassane Diallo. bu dee ca Mbambilor moom donte la def nañ ko commune waaye askan wi seen jafe-jafe mooy ay école euh, loolu yu waral ci am ndaje mu yaatu mu doon amal ñoom kilifa yi nekk ci bokk moomel ba euh, jël nañu ab dogal daal ngir saafara lu ni mel dañuy dem ca Mbambilor fekk fa Nazib Sagna waxtaan seen biir si daje bi nag lu ñu ci wax moo di Bambilor dafa gën a yaatu lu ëpp dëkk yu ndaw ñoo fa nekk te ay cité yu bëri tamit ñu leen tabax waaye bu ñu soyte bu baax Bambilor amul benn lycée benn collège moo fa nekk ak ay école élémentaire yu yoo xam ne ni sax bu ñu xoolee bu baax doyuñu doyen soxo moo chargé éducation si biir conseil municipal bi lii la ci wax. ci mbirum euh, fi xale yi di jàngee ci moyen dañ ci am ay jafe-jafe tuuti parce que boo xoolee élèves yi war a jógee élémentaire bi dem ci CM yi dañu xaw a bari tellement que problème de euh, fi ñu leen di accueillir day day daal di jafe boo xoolee ñetti CM rek moo fi nekk te ñetti CM yëpp dañuy fees muy CM Bambilor CM Gorom 1 ak CM Dén kon bu ñu buggee une politique de euh, de CM de proximité il va falloir que ñu yokk encore yeneen CM te yeneen euh, yeneen dëkk. pour que véritablement ñun dina yenn euh, yeneen CME yoo xam ne l' effectif est pléthorique. kuréel yu toppatoo affaire jàng bi nag ñoom nag lu ñu wax moo di dañuy am jaaxle ndaxte bu ñu bàyyee mbir mi nag si ay at yu ñëw nag dootuñu am place yu bëri pour seen ndaw yoo xam ne dañu fiy jàng maire bi nag moom jëlee kàddu bi nag moom moom lu mu wax moo di il faut ñu gaaw a gaaw ut ay jumtukaay yu bëri yoo xam ne nii day tax ba xale yëpp yi nekk si commune bi mën a am ay place bu ñuy jàngee Ndiagne Diop lii la ci wax. kon war nañu saytu njàng mi fekk juróomi at fan lañ ko bëgg boo koy saytu nag du da ngay at mu jot rek nga xalaat leen na def donc dañu am benn ma sant leen ne leen dama bëgg ngeen defal ma benn plan communal de développement de l'éducation et de la formation ci loolu mën nañu annoncé fii tey nag quatrième école bu Bambilor si ndigalu inspecteur dina ubbi ci loolu it war nañu finaliser ñaari mur yoo xam ne ñaari école la muy bu Déni Géej Sud ak bu Kañak war a tabaxit ñaari salle de classe muy école bu mbéy bi nga xam ne ci abri provisoire la ñu ne. commune bu bees bu Bambilor bi nag découpage bu PS PDS defoon si ay atu 2009 moo ko indi commune bi nag dafa am ay villages yu bëri loolu nag tax na sax am ay jafe-jafe si euh, zone boobu ndaxte jumtukaay pour école yi dooyu ñu fii si Bambilor na yu sa ñaxay télévision Walfadjri jaajëf Najib Sagna ñu ngi lay sant di gërëm ci àndaar la fay waxtaan jamono ji mooy ñàkkum ndox gi ñu nemi euh, ñàkkum jën sax gi ñu nemi ko ci diwaan boobu lee fa la ñu jëm fekk fa Gabriel Barbier am jën fii nga xam ni moom mooy Sénégal wërngal képp jamono yi nekk lu nga xam ni lu jafe la. jën amul fi ñu toll nii parce que xam nga ni jën euh, léegi dafa raar façon jën bu nekk fi daawuñ ko am soo jëlee nga jël coof dañ ko daan jàpp nam ñu neexe nga jël euh, ngot nga jël jànqarfet nga jël jareñ nga jël koc façon jën euh, dem bi benn jën daawul manqué fii si ndar soo jëlee nga jël ndar ba ba ngay àgg kayaar mën nga ni géej gi la désert comme ni Sahara mel noonu la mel benn jën amul fu mu dëkk. ñi nga xam ni ñoom la seen xam-xam màcc ci mbir mi di ci indi yenn ci leeral yi jën boobu li ko fa jëlee nit ñee ko def euh, mooy xeetu nappin yi li ñuy wax ci exploitation maanaam di effort de pêche boo xam ne dafa rëy ñiy ñëw di napp dañu bëri. deuxièmement euh, xeetu nappin bi xeetu nappin bi parce que booy napp aussi di yàq dëkkuwaayu jën yi lépp loo fa fekk nga toj ko jën boobu dootu fa mën a nekk day déplacé wu. il am na également li ñuy wax euh, euh, bëtu mbaal yi bëtu mbaal yi am na tuuti waay boo xam ne bu ko amee aussi da ngay jàpp jën yu tuutee tuuti yi nga xam ne ñoo waroon assurer assurer la durabilité de la pêche dëkk boo dem tey dëkk yi am guerre seetlu ko population yi dañuy daw nëbbatu ci dëkk yi leen gën a jege ndax seen sécurité ak seen sécurité njoboot dañuy wóot jën yi aussi boo ñëwee biir géej détruire yàq fa nga xam ne foofu lañ doon dëkk ah wala wala nga rey jën ñu ndaw yi ya ca des dañuy daw dem feneen foo xam ne danañ fa mën a am jàmm ñu dëkk fa. mu jotoon nag ñu jàttu na soccante ngir indi saafara si jafe-jafe bi nga xam ni mi ngi lor bu baax askan wi. waaw tey jii moom euh, benn cérémonie officielle lañ doon def rek pour mën a dugal fii ci biir géej gi. Euh, ay récif artificiel genre espèce u ndaa la mais doo yi ni nga koy tuddee ndaa rek ma forme bi mm-hmm. Euh, nekk na ñeenti téeméeri récif artificiel yoo xamante ni euh, incha allah bëgg nañu ko def. jën nekk lu nga xam ni ñëpp a ngi koy wër ci année yi nga xam ni lañu génn euh, ci Sénégal wërngal képp Saint-Louis Gabriel Barbier rajo télévision Walfadjri. jaajëf Gabriel Barbier ñu ngi lay sant lay gërëm askan wa dëkkee fële ci diwaanu Thiès xamatuñu luy ndox di sax ndax ñàkk gi ñu ko ñàkk ay fan ngi nii bu ñu amee ndox xaaju guddi la askanu cees na la ñuy dund jamono ji metti na loolu waral ñu gàddu seen i yoxo topp ci mbedd mi yuuxu wàllu dañuy dem ca Thiès fekk fa soxna Ramatoulaye Sarr jafe-jafey fekkee ni yenn quartier yu mel ni Mbour 1 Fayu Kër Masamba Gueye askan wi foofu ñetti fan a ngi nii du toq ndox bu génn ci seen robine ñeneen ñi nag dëkke ci amitié Sofraco ñu gënoon ko xamee ci Mbour 3 ñoom de gisuñu sax toq ndox. problème ndox lañu ñu am. ndox mi moom bu le matin vers yooyu dina am ñu am ndox mu ubbi di xeeli tuuti di xeeli tuuti ba six heures sept heures. awut ah, waaw mu tëj on a des bidons on a des fûts à remplir ba ñu xam ne moom la ñuy remplir ba la ñuy tëdd yooyu bu ñëwee ci la ñu si sangu def si def si ménage beeg tout ndox dañu naan ñii dañu am nii mais am na ñoo xam ni ça fait deux ans deux ans robinet du tijji bëccëg deux heures trois heures di ngay jóg man mii damay fanaan ak samay morom ak ñeneen ñeneen dañu fanaan teg chaise ndox mi du yéeg sax ci raccord pour dugg ci barigo ngay tëgg di di ngacc di sol ci goutte tu ba ba cinq heures matin mu tëj fii nag léegi bi ñu may woo téléphone di yéen a koy dégg da bu ma woowoon pour mu indi ndox loolu la ma sama femme di wax ni charrette bi ñëwagul. ndox dañ koy jënd chaque jour ngay jënd barigo ndox sept cent franc huit cent franc amuñu ndox daal ndox mi daal mooy mooy njooyu nation bi population bi yëpp. jafe-jafe yi nga xamante ni askan gi saay su nekk moom lay dund Malick Faye di ingénieur chargé de projet ci SONES di ci indi ay leeral. il faut non seulement dañu war a yokk réseau bi mais dañoo war a yokk en même temps ndox mi parce que forage yi fi nekk wala doole ndox mi waaw parce que forage yi fi nekk parce que euh, doyatul forage yi ñuy génnee ci ndox doyatul pour satisfaire euh, vraiment la demande de population c'est en ce sens là euh, ñuy def ay forage en même temps def benn de pompage. Euh, boo xamante ne mën na génne 9000 mètres cubes jour supplémentaire ndox mi buy duggee jógee ci forage bi day am na calcaire calcaire boobu nag buy boo koy euh, bu jógee ci château d'eau bi boo di dem calcaire boobu day avec avec contact bi muy def ak conduite bi euh, da koy da koy boucher donc tuyau bi bu fàttee côté bi war a dem ba 1 kilomètre ki nekk ci 1 kilomètre wala 2 kilomètres foofu ndox mi balaa muy ñëw ci moom il faut les personnes qui sont en amont ñooñu ñu noot ba pare liggéey bi am nañ ci yaakaar bu baax a baax d'ici courant 2015 on va on va faire les réceptions provisoires bu ñu ko defee moom présentement fii ba 2022 je pense que Thiès n'aura plus de problème. ci lu ci benn projet de renforcement aju ci yokk kàttan anam bi nga xamante ni nag moom la ñuy séddalee ndox file ci Thiès société bii di SONES nag mi nga tabax ab forage koo xamante ni loolu yëpp luñ ci jublu ñuy xamle fexe ba ñàkk ndox mi daal di jeex tàkk file ci Thiès. Ramatoulaye Sarr Thiès radio télévision Walfadjri jërëjëf soxna Ramatoulaye Sarr ñu ngi lay sant di lay gërëm ñu dellu wax nag ci jongante bi doxoon démb ci diggante Tunisie ak Sénégal askan wi doonte la métti nañu lool défaite bi lee waaye taxul nag ñu xarab benn yoon suñu gaynde yi lee football nañu nag lépp lu ñu mën demoon nañu ba yaakaar ne Sénégal dafay gagné match bi waaye dafa fekk ne football moom renu ñàmbi la kenn xamul fu muy demee Germaine Diouf jot na ci dajeek ñenn ci ñoom ñu teewlu ko ci reportage match bu gaynde yi ñàkk ca yi doon na loo xam ne askanu Sénégal ñaawlu nañ ko defet boobu nag jur ay wax yu bari. ñenn ci ñuñ dajeel ñoom dañoo jàpp ne rek gaynde yi dañoo ñàkk wërsëg moo tax ñu perte boobu le match. c'est ko tonko foofu seen dëkk la affaire yi mi daa xawoon metti foofu daal amul benn faute parce que mais jëm nañoo jouer mais suñu bu ñu mën mais. mais yàlla daal rek may dogal nii mais dama woon perte ñu perte. match moom démb neexoon na quoi Sénégal yi vraiment joué nañu mais au dernier moment naari ndax ñu gagné ñu. avant match bi commencé laa ko wax sama gars yi man leen Sénégal daan football match bi yëpp mais au dernier moment daan ñu nax gagné ñu. boo xoolee ci jeu bi li Sénégal football Tunisie. Sénégal waroon nañoo mën a gagné bi nag sincèrement parler mais le fait que gagné wuñ ko tamit bon xëy na mbiru yàlla la quoi. am na ci ñeneen ñu ñu dajeel ñoom dañu jàpp ne rek entraîneur bi am na wàll bu bëri ci defeet boobu boobule ñoom ñiy sàkk nguur gi ñu mën a tabb entraîneur bu jógee ci réew mi. man sama sama sañ-sañ dañuy sens ban entraîneur Sénégal yi am na entraîneur yu baax yi nekk fii capable di gën ay tubaab di ko fay ay million te di indi benn résultat kooku yàq xaalis la. moo deful liggéeyam parce que deful liggéeyam encadrement bi aussi baaxul. ay jafe-jafe nemmeeku woon nañ ko ci tàmbali match bi waaye xale bu góor bi ñu dajal moom dafa jàpp ne rek askanu Sénégal ñëpp a war a jàpp ci équipe bi ngir ñu mën a jëm ci kanam. joueurs yëpp ay professionnels ñoom mun nañu euh, rectifier wu euh, changer tactique. par rapport au milieu terrain Momo Diamé dafa doon perdre trop bal bi man bu ne woon à la place de l'entraîneur retour des versets du doon ñëw parce que dafa doon perdre trop bal yi donc ensuite attaque bi dañu bàyyoon trop Papis mu wu moom kenn si kaw. à la fin dafa doon ñëw ba si milieu terrain di doon raquette di dem du du ñu Sénégal on a douze xaw ma quatorze millions d' habitants quatorze millions d' en général gis nga même entraîneur même boo fi indiwoon Maleka gars yi dañ koy critiquer donc nit ku ñuul moo mel noonu nañu bàyyi waa ji liggéey nañ ko jàppale donc ñu indi seen contribution affaire bi jëm kanam. ñu bëri ci ñi dajel ñoom am ñu yaakaar ni équipe bu Sénégal mën na gagné matcham yi di ñëw. contre Égypte ak Botswana ngir rek mën a qualifier ca CAN 2015 boo xam ne ñu ngi koy amal ca Maroc. jërëjëf soxna Germaine Diouf ñu ngi lay sant gërëm mbokk yi kon ci foofu la ci la ñuy tàbbiseeg ci xibaaru bitim réew yi soxna euh, ndey Fatou Ndiaye lañ ci yàndal. xibaar yi bitim réew yi dañu koy doore ak tawum glace bu métti ba nga xamante ne mu nga amoon fële ca Népal tey jii nag ñi nga xam ne mucc nañ ca maanaam des nañ ca ay bakkan ñu ngi waxtaanee lépp lu luñ ci jot a dund ñooñee nga xam ne gis nañ ne dee jege woon na leen lool gannaaw ba fa tawum glace gi takkarnaase am na sax ñu bëri ci doomu aadama yu ñàkk seeni bakkan ci foofu foofule xayma nañ ko sax ci fi mu toll nii ci fanweeri doomu aadama yu ñàkk seen i bakkan ak ñu bëri ñu leen doon saytu maanaam di leen indil ndimbal te kenn gisu leen ci jamono yile waaye li wér te foofee nga xam ne mooy ca Népal li leen itteel bokk na ci jéem a seet ñi réer ndax ñi ñàkk seen bakkan moom kenn mënul ci ñoom dara waaye ñi moom am nañu yaakaar ne am nañ ci ñoo xamante ne des nañ ci ak bakkan fële ca yi jàmmarloo yi tar na loolu ci dëkk ba ñu wooyee Kobane loolay sax tax na ba askan wa fa yeewoo dañoo daw jubale ca réewum Irak ñii di kurdu yi nee ñu bi ñu takkarnaasalee lii di tàkku ndel yi ci dëkk boobu de Kobane ñii di waa état islamique nag deltu nañ ginnaaw bu baax ba xayma nañ sax ci lañ fa yor ci suuf sa mën nañ ko lim ci ñaar fukk ci téeméer yoo jël ñu jàpp ne nag fi mu toll ni coalition bi xeex état islamique amagum nañ ndam waaye fële ñu daal di yàggaayu ba jéem a dalal seeni xel dañuy wéyal di def ay bombardement foofale ca Kobane lenn nag ci askan wa fa yeewu am ñu njàqare ak tiis ndax ñu ci bëri si ñoom dañoo dawoon ca turki dundu fa lu méttee métti moo tax tey ji bi combat yi dooratee dañoo daw jubali ca Irak ñu jeexalee xibaari bitim réew yi ak États-Unis foofee nag jafe-jafe am na fa wala sax jaaxle gu rëy rëy gannaaw ba fa jàngoro Ebola amate ndax benn infirmière muy ñaareel bi yoon di ab américaine am na jàngoro bi di Ebola te nekk fële ca États-Unis ñu ngi ko entré ca benn hôpital bu nekk Atlanta moomee sax daañ ko fa faj gannaaw bañ fa fajee ñaar ci ay doomu réew États-Unis yoroon jàngoro bi waaye nag mujjoon nañ leen faj ba ñu wér dellu ci seeni kër ndaw si Amber Vinson moom bokkoon na ci équipe bi demoon di faj ab libérien bu daal di ñàkk bakkanam ci weer bi ñu door fële ca Dallas moom mee nag ba muy ñëw sax di faju si ginnaaw bu mbokkaale woon ak yeneeni doomi réewi Amérique jubali woon fële ca Cleveland loolu sax tax na ba a bokkoon ak moom avion am nañu tiitaange wu rëy ni ko njiiti réew bu États-Unis di Barack Obama amee ba sax mu daal di dakkal ñaari déplacement yu mu namoon a def ngir convoqué ab réunion d'urgence fële ca Maison Blanche fële nag ca États-Unis ngir xeex jàngoro bii di Ebola bépp hôpital boo xamante ne def nañ fa benn malade bu am Ebola ñooñee sax dañ leen di daal di ber fexe ba balaa benn fan di am kenn du jaxasoo ak ñoom ngir jàngoro bi ba a wéy ci boobule réew ci la jamono sax wala ci alxames ji fële ca Europe nag ay ministre de la santé nam nañoo def ab ndaje fële ca Belgique rawatina seen payum réew di Bruxelles lépp nag ngir waxtaane fa yan jumtuwaay la ñu war a jëfandikoo ngir xeex jàngoroy Ebola.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 incha allah rabi bu 20h jotee soxna neen Jupiter Ndiaye dina fi teew fas yéene faram-fàcce xibaar yi ci nu mu gën a yaatoo ci kàllamay nasaraan mucc gu saxtaan ndax xéwal yàlla na ko yàlla tuul ci askan ak sunu gaal dig daje 23h lay doon ci yeneen i jotaayu xibaar jërë ngeen jëf.